mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen eh, ziare di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi ñuy topp moo xam eh, ci réew mi la ci bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax waaye di jaajëfal mboolem eh, diwaanu muridina gi nga xamante ni mboolem bi ñekkee ci wàccaayu màggaluk li nga xamante ni mooy màggaluk Daaru Xuddus seen yitte seen lépp dëgmal li nga xamante ni mooy màggal gi ngir fa seen lépp loo xamante ni rek lu ñu war a wane la lu mat a wane la diwaanu muridina maanaam di leen ko indil saa su nekk diwaanu Mouride nag ñu ko waxee mu doon loo xamante ni lu matale sëkk la mboolem lëkkale mboolem kër leeru Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Karimi macha allah tey ji nag ñu ànd ak yéen fii nga xamante ni mooy bayti ci guddi gi nga xamante ni Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Sohaibou mi ngi koy faral di amal ñaare sa su nekk bu màggalug Daaru Xudus eh, di ñëw lu jiitu mu jàpp ko soññee ko yaatal ko ci bépp soppe waaye yaatal ko it ci bépp mbokk taalibe boo xamante ni yekk yaa ngi nekk ci dëkk bi wala lu génn dëkk bi xamante ni mooy alquranul karim ak xasida nii rek nag tey jii xam naa dañ leen ko fas yéene indil lépp loo xamante ne rek euh, am na fi moo xam njàngum durus la wala njàngum yëkkati wala njàngum rajas macha allah lépp loo xamante ne rek am na fii nga xamante ni mooy bayti tey jii euh, ci guddik mawlud gi nga xamante ni Serigne tu Mbacké moom Serigne Souhaïbou mi ngi koy amal di ko jeyal euh, woy juróom wu tedd woow di Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim nga xamante ni kenn dootu ko fàtteeti mën nañ ci l'islam ndax taxawaayam bu am sol bi nga xamante ni mën nañ ne kenn mënta tudd yoonu murit te tuddoo Cheikh Mouhamadul Moustapha Serigne Amsatou jël liggéey yi nga xamante ni mi ngi koy faral di amal ñaar ñaare guddi yuy jot ñaare màggal guy dëgmal rek rawatina ci njabootu Seexuna Ahmadul Xadim mu jël ak guddi goo xamante ne daf koy laytaaye li nga xamante ni mooy wàccaayu màggal googu tey ji mu beral ko ki nga xamante ni mooy Seex Muhammadul Moustapha ci dibeer jiitu tudde ko li nga xamante ni mooy guddik mawlut woo ci bépp mbokk taal bi ak bépp soppe incha allahu rabbi lépp lépp loo xamante ni am na fi rek ñu fas yéene indil leen ko kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu أحمد محنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شر والصنا أحمد معنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شر والصنا لتخمو أمو يو جاكلنغا جاغلنغام تيو ترندو ngir ko fi bokal turando aminatu du ndayam baabu ami doone seexul xaddim du waajuram teyit du am ngor gi nga am gi jagle yow rekk a ko am aminatu jur mustafa amintaloo jur mi tafa kon mee tafa moo may mi li tax mu sangaay kemam madina géeg taayif gële tuubaa gi léeg taayif gile meetar yi ñoo ko tollale kum neex nga dem natti ba xam taar ba newoon ca Moustapha moo nekk ci mii tafaa wir ga newoon ca Moustapha gis nañ ko it ci mii itam Cheikh Moustapha mosula wor telum la wax loolee la nar moom lum la dig faye ko bor kenn mosu koo gis mu bangam bu dee ci taar moo gone bu dee sawar moo raw ku ne fu mu toll di kunkuni ngir bëgg lislaam jëm kanam wa min midaadi xullu ma shaa yaa man law wajjihul inshaa yaa rabbana salli salaatan taa'ira ma salaamin li idaaka xaa'ira على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وسعبي في الحال والمآل ومن خلامي غلا تفسيرا يا من لنا أرسل أنعم جنابي وسن مآبي جود ذكائي كن الغرورا وامه الغرورا هب لي نسورا مع التكائب خذ لي نوالا ينمي كمالا يا من تهالا عن شركائي زدت هدايا خذت هدايا لي برضايا يا دون اشتكاء يا خير مغني أغنى بمني عليه حسني بلا غلائب لك شكوري عند ديوري يا ذا القصور بلا جلائب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم سيدنا ومولانا محمد wa ala wa asxaabihi wa xadimihi sawi ridwaani wa tamkiin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi bokki talibe yi ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci turu sëriñ osmaan Mbacke Gaynde Fatma ak bokkam yi mu fi bokkal nekk muy njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha te nekk ci biir njaboot gi ñu teew fi teewaayub sëriñ ahmadul muxtar mi nekk ci bopp njabootuk cheikh muhammadul moustapha ñu yëkkati kàddu jëme ko ci sëriñ xamsatu mbàkke moom cheikh Chouaïbou kàddu yi nag ci ñetti tomb rekk lay tëdd benn bi mooy fàttali tuuti ci barab bi ñu nekk bi ci des mooy fàttali ci bis bii nu jëm bi ci des ay cant la yu jëm ci sëriñ Amsatu jóge ci sëriñ bi barab bi barabub Abdul Xadim la barabub sëñ Tuuba barab bi nag mënee su ko tudd te tuddoo sëriñ bi Abdul Xadim moom yi man de dama ko ñemewut a dogal mbubb ndax dama xamul jëm jëm ji nu mu tollu ni mu tollu ci man lay xam waye xawma nu jëm ji tollu motax ñimi mu ko dogal mbubbu mbolem mag ñi ko dogalon mbubbu it bañ dikke mbubbu ya da cëkk parce que kenn ku nekk fa xelam tollu fofa la ci waxe aw teñ nak boko ne yalla bind na lu gëna bop mu weddi ndax ci kaw bop lay dund ba am ci seut du ko waaye ni àdduna ëppe bopp noonu la sëñ Tuubaa ëppe sunum xel tur yiñ koy wooye tudd ci benn mboolem tur yiñ koy wooyee boo demee ci mag ñi dañ naa la xut bu la ñii naa la wàllu la ñii naa la ci labdaal yi la bokk ñenn ñiy jàppe ko xawsu ñenn ci des ni la boroom xam-xam la ñenn ñi nga xamante ni nii xuus nañ ci géejug cofeel ba mànd ca ba amatuñ sago ñu yàlla la donte jubluwuñ ci yàlla mi bind jaam ñi sax waaye da leen a jaaxal ñenn ñi ni du nit ñenn ñi ni sëñ bi njuuma la ñoo ñëpp xam nañu yooyu du ci dara dañoo jaaxle rek dañoo jaaxle moo tax duma ko daggal mbubb waaye sëñ Moussa Ka mi wax ci ak maanu dani billaahi ñoo xeej ji seddu cër bu doon billaahi yaa mat la nga doon sëñ mu mat na lu mu doon xaw lu mu doon nag waaye moom mat na ko waaw ah, lu mu doon waaye mat na li mu doon ndax li wér te wóor mooy sëñ aadama géey mañ wax ni moo jëkk a jébbalu ci taalibe ba ci taalibe bi nga xamante ni jàpp nañu bis bu joxee ay loxoom bu ko roccee ca la addunay tukki ñoom ñëpp boo leen boole woon ñu doon benn birig nga teg leen ci balance teg sëñ Tuubaa ci balance sëñ mi wat nu ñun ñëpp du ci kenn ci ñun du ci kenn ndax mboolem ñi nekk ci diggante boobu yi kenn ku ci nekk la nga doon sëñ bee tax nga doon ko te moom li mu doon kenn ci ñun taxut mu doon li mu doon kon mëneesu la wax ci moom lu bari waaye dañuy yem rek ci lim wax boppam am na ni abdun xadimun la yarim foofa rek lañ lañ lañ cay yem ndax toujours damay wax ni mag moo xam ne ba muy yanu fekke woo te sutoo ko ba ban koo njoolu te néewu la sama ndab nangama ci nekk soo waxee la ne dangaa waxee sam xel waaye waxoo ci ak maano moo tax moom ba muy tagg yont bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni fa mablaxul ilmi fiihi annahu basarun wa annahu dunoo lu wa afkaar loole rek lañu waroon wax ci moom nee na yonent bi loo wax ci moom lu dul mbindeef la juum nga leneen li ci lépp xel xalaat la rek dañuy nattale waaye ëpp na ko moom itam foofii la tollu ci ñun barab bii nag barabam ma moo ko sanc ci ginnaaw bu mu sañcee barab bee fee mu tëdd ñaari at la sañc barab bii barab bii moom la sañc tudde ko daarul xuddoos li rabbil aalamiina mursilu ahmada mag ñi daan ko wooye kër yàlla diiru lim fiy nekk menn mag mosa ko fi mosa fekk te woowu la amul mag ñi kër yàlla lañ ko tudde woon kërug wéetaay la ko tudde woon néeg bii lañ tudde woon bayti moo doon néeg bi mu daan dugge xalwa ci jàkk ji la daan jullee kër gi moo tudd daarul xuddoos daa mel ni nag turu quartier bi moo nangu turu kër gi kër gi nangu turu néeg bi néeg bi mooy néegu boppam fi la doon nekk di gis yonent bi sallallahu alayhi wa fii la waaje liggéey bu rëy bii nga xamante ne ni moom la sumb ba kenn ku nekk yëg ci sa bopp ba tàpp ni yaa taxoon sëñ bi laxasaayu dem ci géej fii la ko doon waaje juróomi at la fi def yoo xam ne fu mën a demaat dana si ginnaaw bi la sañ ci daarul rahman muy kër sëñ bu mag ñu tuddee ko daaru naar moo fa daan dalal gani naar yi nga xamante ni ñoo ko daan fekk si te ñoo ñu ko xool tur yu xam ne rahmaan a baax ci ñoom ndax ndimbal rek lañ doon wut si sëñ bi sañ ci daarul minan tuddee ko këru xéewal daan fa dalal gani ceddo yi nga xam ne dañoo tuub bàyyi lañ nekkoon te ñooñu kenn ku ne xam na ni am na noo xam ne boo leen téyewut seen xel delluwaat ca lañ newoon xéewal rek baax ci ñoom mu leen daan dalal daarul minan fii mu defoon ko kër yàlla di fi jaamu boromam di fi waaj waaj wàccaay mu rëy woowu yi nga xamante ni ni yàgg na koo waaj moom la doon def fii kër gi noonu yi la ko sañce bu weeru koor jotee ci jàkk ji lay dugg jàkk ji ci biir kër gi la ne newoon Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma bi muy lotti sa dëkk bi moo ko génne ci 1960 dagg ci penc mi génne ko jàkk ji ay doju xandeer ya jóge woon ca jàkk ja ca cëwén ba fa Sëñ di jóge moom lañ indi woon ci barab bi xam too ko barab bi suul ko fi ngir xam ni jamono dana ñëw des na ko liggéey cërub sëriñ ma dina ci 1978 bi mu wutoo sëriñ Cheikh Mbàkke moom la jëkk a liggéey moom la génne loolu ci màndargay kër gi la bokk sëñ Tuubaa it daana wax ni mooy këram gi nga xamante ni iblis mosu feet ak tànkam loolu wax na ko ay yoon mag ñi dégg ko dugg na fi itam xalwa boo xamee sëriñ daaru xasan njaay mooy jiite sëriñ bi di tollale ci moom fukki fan yi mujj ci weeru koor ci bay sësin la deex leef tikaaf ci jàkk ji muy jàkk daaru xuddus ji fukki fan yi mujj ci weeru kooro sëñ Tuubaa fukk fukki fan yi mujj ci weeru koor daan fekk li itikaaf lay def moo tax sax yoon wi li nu dal ci lay laylatu xadar dal nu laylatu xadar fu ñu doon ni doo dégg menn mag ci nettalikat yi ñu ni la weeru kooru at sàngam ca nangami fan yi la sëñ Tuubaa laylatu xadar ndax fukki fan yi mujj ci weeru koor yi ca biir jàkka jale nag kenn xamut lu mu nekk benn yoon la ci sëñ Mat Lamin Jóob sa nettali te nee na loolu njaareem la ñu daje ca ëtt ba di def laylatu xadar sëñ bi génn ni leen lu ngeen di def ñu ni ko laylatu xadar mun leen du tey ñu dem ay fan ca weer wa mu génnaat ni leen bis ba ngeen doon laaj tey la waaye sëñ la mi ne dañoo fàtte ñaata fan la ca weer wa moo tax li ci gën mooy bu weer wi amee ñaar fukki fan jàmm bu bis bu ñëw nga jàpp ni tey laylatu xadar ba keroog ñuy war bis bi du la loolu mooy li bi wax ni seet leen ko ci fukk yu mujj yi ci weeru kër gi wàccuwaay boobu la nga gis ni sëriñ Mat lamin Guèye bàyyi la ci sëñ Moustapha Guèye mi nekkoon daari kaamil te këram jàkkaarloo kër sëñ Cooy bu gii moo ne ci koñ mi ñu bari xam nañ ko nee na baayam nee na ko toog naa fii ci buntu kër bi mag sëriñ bi sëñ Tuubaa nee na sëñ Tuubaa ni ko Mat Lamine mu ni ko Mbàkke mu ni ko diggante fii ma toog ak pencim sa borom bi di taxawee soli dal xaju fi waxantuma di war dara loola lam lam lam ni lam ni mooy man sama sama sama jàppuk bopp xam du ma dara waaye foofu la sama xel toll jàpp naa ni sëñ bi fii mu tëdd penc mee koy waaye du jóg di dox ji wuti penc ma loolu moo tax mu diggante fii mu toog ak fi pencum saa borom bi di taxawe soli dal xaju fi waxantuma ak di war dara loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax fii ci barab bi Sëñ Abdou ku ne xam na ko dafa waxoon ni ñëw Tuubaa bëggee naat te ñëwoo bayti moo nga jëm waaxu jëm cim néeg dem ba jub néeg ba mu riirido ba wàññi ko ñooyam fii la borom doon waaje maam Thierno Birahim jóge na Daarul Moxti ànd ak sëñ Matar Samba ñëw yandu fii ci kër gi ba ngoon jot mu takkaat dellu sëñ Matar Samba ni ko li nga def jaaxal na ma mu ni ko mu ni ko maa gis nga jëm Touba demoo ca barab ba xanaa yenn Daaru Xuddoos ba ngoon mu ni ko ñi fi sëñ bi dalaloon laa doon xool ba xam ñu ngi fi wala déet waaye demuñu fenn ñu ngi fi te kees a ngi ci biir koo xam ne ku ko saw fit may mën ngaa dem ma nga fa mag ñi yàgg nañ koo waggar moom kenn ku ne yaay testil sa bopp ba xam ma nga fa wala nekku fa ndax fal leen sëñ bi daa bàyyi woon te ñëwatu sëñ Modou Raïs Lo mii nga nekkoon njaareem doon doomi sëñ Siré Lo ñu bari xam nañ su daan ñëw ci kër gi te soxla sëñ Mor bayti mi yor kees gi kër sëñ Omar Ndiaye daara ja ca koñ ba fa la ñuy daje ndax da ko naan foofu yi nga ne daa fees dell ba kenn xëju fi te lañ doon wax doonu ab làmbut bi sëriñ bi ñibbisee Touba bañ demee ba ca Koriwa la sëñ Moussa salaat kër gi ñëw dëkke gentub sëñ bi sampat néeg yi fi mu ne woon la la ñuy wooye école français ba ca sàq ma tabax boobee moo fi jëkk a nekk ci Touba 1927 la ko fi sëñ Touba deflu waxoon sëñ ma ndumbe ni ko defal ma fa kërug téere gu të sawara sëñ ma ndumbe moo ko tabax mooy bi fi jiitu mooy bâtiment bi nekk ci biir kër gi ca koñ ba keur gu te sawara motax bi seigne Cheikh Mbacke di defar jàngukaay mu ubbi ko école mag ñu ne ko seigne bi waxul won lolu dañ won nañ ko fi defar keuluk téere gu te sawara seigne Cheikh ni len lolu nit lay doon fuñu préparer nit nit lañuy préparer bam te sawara kon nga gis ni lu am solo la lu mata baye xel lolu moy pak bi mbollem doomi seigne touba yep daawuñu fi sëñ Modou Moussa mi nga xamante ne nii nag moo ko dëkkee moom yàlla dogal na moo mag njabootu sëñ bi jëkk koo wuutu gannaawam taxaw taxawaay bu am solo boo xamante ni nii fii yoon wi ak si tey pas-pasam ak taxawaayam ak dëgëram moo tax yoon wi ak si lu tax mooy nii Touba mel tey sëñ Touba mi tëdd fii rek tax Touba mel nii mel bu sëñ bi tëdduloon fee ku la man ni la mën na maa indi Touba fii xana nga dem ba teg ci sa beut ndax ceen def na fa juróom-ñaari at ba legi ak segul fofa ñaarim def na fa fukki at ak juróom ba legi ak séegul fofa gannar fam neewon tasna ci santiat ko lañ tollu fi juróom-ñaari at la fi dekk genn nako ko at ak ñett door fe del ci wat bam koy sanc ci bir keur seigne taliou fofé la mbar mat la bul sey ma neewon fofa la waxoni ilahi maskan yi abat. abad misla smiha bi jahi xayri man abad bayit wowe mag ñi di jang waaye nu mu doon nangoo dana leen jaaxal ndax fanweeri at ak ñett ginnaaw bi bayit wa door a ñëw firi boppam muy sëñ bi tëdd fa tëddatu fa jóg loo loola lu wér wér la lëg yëpp sëñ Moussa ndax damay wax ni tuubaa climat bi neexut ndox mi taxu koo neex amut jamaa amut pétrole neexut a bay te nit ñaa ngi dalaf dala fi koo wax mën la Touba laa jëm sëñ Bamba mi fi tëdd rek a tax bu du woon sëñ bi kenn du fi jublu jëmmam lañ mënta wecceek dara moo tax Touba agsi fii mu agsi loola bu ci sëñ saa yemoon képp dana doy waaye nag mos sa tax mu deer mbagg sëñ bi dafa daan wax ni dee leen ma xool ci ñi ma fi nekkal ba ba may dem waaye bu leen ma natt ci sëriñ bi moom xamoon na kuy sëriñ bi lool loolu yi daana ko bàyyi lu xel bu baax a baax daana wax nag lépp lu waay am ci sëriñ bi ba nga koy liggéey maag yow a ko ànd ma ëpp leen leen nag njuréel gi daan nañ dem ci curi ba fas wu ko waaye indil indi naa foofu ko gën nañ dem ca sàq ya sàq mu fooy indi naaf mu ko nañ dem ca téere kamil bu ko waay indi bindal bindal naa ko kamil yu ko dàq daal di yëkkati loxoom ni bindal ñaar ko ñeent fukki kamil ak ñaar yoo xam ne man képp la te bokkul ak kamilu bokkaate yi ndax mook sëñ Fallu bokk nañu kamil mook sëñ Omar Mbàkke bokk nañu mook sëñ sàmm bokk nañu kamil kamilu bokkaate sëñ bi tëj na leen ci ceeyin weer woo xamante ni da leen di bindloo weer wépp ku ci génn néeg bi da ngaa sam njàpp ñëwaat doon ñu daakaande lañ doon dunde ak kubéeru satl ak ndox ba kéro weer way jeex kon li fi ne day jaay waye mayewut sarxewut te señ Tuubaa daana wax ni aljana ak barké ak arxuraana yam da ngay fay ba mat sun borom door la ko jox ñeeg gi nangul nga avance ko di déssel da ngay fay ba mat rek motax mag ñi liñ am dañ ca sonn li ci des buñ toppee waxtaan wi mën gudd waye bis bi nga xamni ni lañuy wajal muy bisu fukki fan ak juróom-ñeent di ñaar fukki guddi ci aw tamxarit bayitu sëñ Tuubaa wii mu doon wax waccal ilaahi maskani Tuubaa abat keroog boobee lañ ko réalisé mu ñëw muy talaata fukki fan ak juróom-ñett ji sëñ Muusaa jógee jógee ñaaxeen jaar gaawaan ñëw njaareem diggante tisbaar ak takkusaan dal ci këram googi ci wetu kër gi mag ñi gis ak moom waxtaan ak moom ni ko sëñ bi mat naa nemmiku ndax lii mu def gëj na koo def Gawu, la mujj julli ji gee boobaak léegi xamatuñ ci mom dara mu anda akuk dal ànd akuk aku gëm yalla bu baax bax di maslaak ñom ba julli timis ba pare tabbi ci biir kër ga ànd ak mag ñam amara andal señ mat Lamine job ci la señ Cheikh Xari Jeng nijaay señ basiru ci la señ matar sil la bëkk nekk la bañ démé di di di gëssu ba gis ni li sun borom doon diggé lolu aksina tay mu xam ne responsabilité wàcc na ci kawam mooy la taxoon sëñ bi di ko waajal la taxoon sëñ bi ni ko naa dem Touba te bu xat damm la taxoon sëñ bi ni ko su ma demee Touba lépp lu ngeen tàmbalee te danaa ko àggale waaye su ma demut tuubaa da ngeen dana mel ni demaluma leen woon fenn keroog la doon moo tax sëñ bay jaxat naa ko sayam wu rëy wañ daan musuloo ko daw moom la la yan keroog la yanu loola mat naa bàyyi xel bu baax a baax te loxo yim ko fekk fanweeri at nangam yor nañ ko yor nañ ko sëñ bi fu mu yendu mbaamu fanaan fa ñoo ko fa yendal résidence surveillée la ne juridiquement kenn amul droit déplacé ko te tubaab bi yëgu ko njaareem fukki at ak juróom la fa nekk ñaari yoon la ko mus a génne benn bi 1919 la xuru Mbàkke la ñëw maam Cheikh Anta ko ñaanal autorisation bi ci des 1922 la Dakar la fi dem gouverneur général moo ko woo kon bu wàccee ci njaareem ñu ni dañ koy yóbbu Touba fit dëgg koy def looloo tax ba ko sëñ Moussa waajalee jël seigne basirou tek ci kanamu auto ba mu toll ci fanweeri at ak ñaar kep seigne basirou nga gis ni kon nit ku gëm yalla ku dal ku amum xel te mën a ndax fanweeri at ak ñaar ak seigne touba ak ni mu toll ak ni fessé jamono nga yor ku ñun la ya koy yobbu ya koy taxaw lolal banen mbir la moy xamal ne bi nimu ak njabotam mom seigne Moussa mu toll ci ñeen fukki at ndax te mom ak ci njabot gi dess njaareem lu mu dess njaareem moy da raxal firuk jambour day xaar seen borom fir gi ba xam bu ñewé nu ñu réagiré su demoon dañ naan daa daw moo tax ñi naan sëñ Moodu daa yóbbu sëñ tubaab ba ak bundu la door ko wax tubaab bi man leen dee déedéet loolu du jom du aw fit te sëñ Moussa ñàkkut ci yooyu benn daa dem ci tubaab bi wax ko ànd ak moom ñëw tubaab bi ñëw mu wan ko ni ko sëñ baa ngi nii dafa génn àdduna ab tubaab ak diir bi ñu ameeg sëñ bi dee su muur dara rek ni leen dafa génn àdduna ñu gëm ko ndax fi ñu jaar moom ñoom jàppoon nañu kii du génn àdduna ndax fi ñu jaar moom boo demee ca ndar lañ daj ci moom mu ràcc ñu ñëw ndakaaru nga gis néeg bañ ko dugal ba sëriñ bi di ko fàttaliku mu mel ni guddi googaa gën a metti ci moom ida zakartu dalika al mabit wa dalika al amira wa sabota taarat ila jihaati bil armahi lakin wa saba anil nga gis ni diirub géej gi daanaka loolu la ci gën a fàttaliku nga xam ne jaral na ko jëlaatu xeej jàmmarloog tubaab yi waaye yonent bi moo koy defal nga gis mu mucc ca loolu ñu yóbbu ko gabon gabon takk nañ ko ci garab dóor koy bal taxaw na ci kaw montagne ñu ba ma kooki bagaasam mu suuf def nañ ko ci pour sofe ba mu tàng ñu tëj ko ci biir dugal nañ ko ci mbana taal mbana goo xam ne suñ bee ko nettali nee na sàllaw ak kaw diir lañu indi goo xam ne donc leer ga ñeent ñu am la fa ko yëkkati mbaa juróom nee na kubéeru cin gi rek juróomi ponk la ko yëkkati wala ñeent nee ñu ñulug ba mu tàmb mu dugg ci biir ñu ni ko duggal mu dugg ndax daa waxoon ni lépp lu ma tubaab yi digal lu dul mooy yàlla danaa ko def ñu ni ko duggal ci mbana gi mu dugg ci mbana gi ñu ub mbana taal ca taatuwa di xamb ba 13 heures jot loola xam na ni lu rëy la waaye lam ci mujj rek nee na ba waxtu julli jot tubaab yi ni dañ seet si ba xam ñor nga am déet ndax dañ suñu borom waxtu julli jot na te neewoon naa duma leen ñaan dara duñ xam sama soxla suñu borom ni ko dañ seet si ba xam ñor nga am déet suñ tubaab ni sàllaw kul bét ja ak ñokket jaa ànd te góor sax defunu ko kooku nag mënta ñëw ba après ay at ñu muur ko rek dikk ni la ma nga ne génn àdduna tubaab yi gëm ko déedéet tubaab yi def nañ seen test ba xam ni kii nekkatu fi certificat de décès bi ñu def moom lañ telegram gouverneur général xamal ni ko génn na àdduna lañ ko yóbbu Tuuba bis boy bi nag nga xamee ci la ñëwee bis boy bi le sëñ Moussa wax ni juboo naa ak sa borom loolu engagement la boo xam ne moo ko jël diggam ak boromam juboo naa ak sa borom ci képp ku fanaan ci bis boobu ñu jéggal la say bàkkaar loolu sëñ Moussa ko wax ndax nee na ñoo ñuy gunge woon sëñ bi bi muy ñëw saa yu bis boobee dellu siwaatee danañ ñëw fanaan si ci dëkk bi képp ku fi fanaan ak ñoom suñ borom dana la jéggal loola boo demee ci xasida xam sati rijal boobu sun sëñ bi di waxe yaa rabbana ilayka asku xaali bil mustafa wa xamsata rijali asayqil xawsu xaadiril jeylaani haisil ulumi wal irfani suma abi yasid al bastami aarifin mubajjalil humami ثم تطيفور ابن عيسى الهالي ثم أبي حامد الخزالي خامسهم معروف الكرقي الجهبس المقدم الولي اهدرهم لو اهدرهم عندما مات خدا su sama roog yi tàggalikoo sama yaram nañ ko teewe ñooñu teewi wuñ ko roog a tàggaloog yaram ñu delluwaat fañ ne woon danoo ànd ak sëñ bi gunge ko kon buñ la ne danañ fi del siwaat war nga koo gëm sëñ bi waxaat faneen itam ne inna allasina sahidu fi lmaaraka mujahidina kullu abin musrikin li nawalun kulluhum yaxbituni wa kullun saa'irun li watani fan la suñ tuba dekk tuba gi la dekk mu ni mbollem ñi xex bu yaronti musa xex ku ci sa bakkan dess wala banen xex bo xam dañ ko xex te l'islam tax neena na ñepp de ñeenañ ma sama cër bi nga te ñoo ñaan suñ borom ngir ñew siyar ci sama dekk bi banen bi ci mo ni sàkkara ni rabbi inda jundihi suñ borom sant na ma ci kanamu armem ramu siyarati min indihi ñoo ñaan suñ borom ngir siyar ci ma fi rek lañ jëm ci motax seigne ni bis boobu ko ci Touba sun borom dana seetal wecc ci ay bàkkaar waaye ci jàng alxuraan jàng xasida istighfar salaatu ala nabi borom xam-xam yi laa biire ñi xamut ñi am doole dimbali ñi nga xamante ni dañoo néew dool loolu la sëñ Moussa daan def bu ca ngoonee mu bind ab discours fàttaliwaat nit ñi li leen taxoon a wuy si sëñ Tuubaa fàttali leen bëgg-bëgg sëñ bi ak naalam yu rëy yi nga xamante ni moom la fi bàyyi woon ba képp kuy demaat danga nga yóbbu lu leer nga xam ni bu ëllëgee kaneen koo séen ci la neen da nga xam ni kii la mu waxoon moo ci jóg waaye fa mu jógee moom lu leer la fa jële lolo moy moy bes bi mu waxon mag ñi ne len nak ku ci yor yaari mbubu na la jaral jaay men ma ku ci am loo ma nar jox te am mbokkum taali mu bëgg ñew te mënta ñew jox ko pass jox ko mu paase ngeen and ñew ne len li ngeen tonto saxar gi mok li ngeen ma jox ma def ci sa sama poos ñooyam soxlawuma alal ji roi la bëgg ñu fanaan ci Tuba loolu lu reey reey la te damay wax ni ñetti guddila xam man xaw ma ku xam yaa yeneen waaye ñetti guddi laa xam yoo xam ne dañ ku ca fanaan tàggook bàkkaar laylatu xadar sun borom a ko wax xayrun min alfi shahrin guddi gàmmu sëñ Tuubaa ko wax wa man yuasim mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu xada sëñ Tuubaa ko wax amut sikki sàkk ganeen guddi gi ci yees mooy gi suñ mënu sa waxee ni juboo naak saa boroom ci képp ku fi fanaan sun borom jéggal say bàkkaar te seigne touba itam bo demé ci mawahibur rahman ci tarjuman wahni mo wax ni allahumma ijal xayra ayami yawm alqaq sun borom maa lay ñaan nga def bis bi gën ci samay bis moy bis bi may ak yow mo gënal ma ci samay bis ngor ak seigne touba ak ak dëgëram ak diine motax nga gis ni bisub 18 safar fim ko tek fen tollu ko fa waye damay wax ni la baykat bi ngab aw simiñam ak dem di roji bala ne bis bobu moma gënal bis bi ma ngàbbee sama bong di fay ji da nga xamni ngor ga tax muy wax ak jambar ga waye bis bi nga sa bong di fay ji moo neex te mooy bisub 19 bii ñu jëm ci tamxarit gi mooy bis bu mu wàcce moo tax sëñ Cheikh Mbacke waxoon ni képp koo xam ne kañaan muurut sa bëti xol da nga xam ne bisub sëñ Tuubaa bi moo gën a yeyoo màggal ci beneen bis bu dul moom lii rek taxoon moo di ko woote kon yooyu mooy liñ ci bëggoon dox sëñ Moussa moom yi nga xamante ni nii moo ko doon woote nag sëñ Modou Xaban ku ne xam na ko daa wéradi woo sëñ Modou Xadi ab jarbaatam ma ni ko kaay demal ma ci sama nijaay ni ko na ma ñaanal maam Thierno Birahim mooy nijaayam soxna Fatimatu Bintu mi ko jur ak maam Thierno ñoo bokk ndey ak baay ba sëñ Modou Khady demee ni ko sëñ du nee na yaram wa daa xaw a libbat bëggoon nga ñaanal ko mu ni ko ndax wax na ko sëñ Modou Moustapha mu ni ko ah man de ci yow la ma yónni jaaruma fenn mu ni ko bu demal boo demee nee ko na ko wax Mouhamadul Moustapha moo fi nekkal sëñ Touba bu ñaanee ñu may ko bu ñu tin ko kon mag ñi xamoon nañ li mu doon te maam ko yar lu ci moom moo ko ci def. loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax li ci des kàddu yi cant la sëñ am satu sëñ Ahmadu nee na mu ngi lay sant xolam sedd na guy yaakaar ju ànd ak yàqin la am ju wér ci taxawaay bi nga taxaw ci sàmm ormay sëñ Tuubaa ndax orma ji sàmm ko moo fi bàyyi woon mag ñi fi nekkoon moom it moom la moo leen fi bàyyi te doxin woo wii la gis ngay dox te sëñ Tuubaa daa wax ni képp koo xam ne dees na la tudd di ma tudd Ya xam lo meuna don ci man te su nit yamone ci yow duma ko jaral aksi ndax saw melokan seigne touba neena do doo sirat siraat mukk te layowuñ ko maag yow te li ngay def rousseau seigne bi fekk la ci kon neena mi ngi lay ñaanal dara jey pak bi ak kiko santion ak la tax mu sanc ko yalla na la sun borom taxaw yalla na la yalla gatandu ba nga ag fi nga jëm te do am mennum dok neena mi ngi ñaan sirrub ayib wa maa nanshaq min ayatin maa nanshaq min ayatin aw nunshiha naati bi xayrin minha aw misliha alam taalam anna allah ala kulli shay'in xadir nee na sirrub ayib boobu yàlla na ko suñu borom wane ci sa jëmm te ayib ba suñu borom da cee wax ne maa nanshaq min ayatin aw nunshiha mooy kiimantaan gu leen yàlla mën a wan ba nga jàpp ni ganeen kiimaan gu ko féete ko amut suñu borom jëlee ko fa wala lu la mën a tamal ba nga jàpp ni lii moom laneen lu ko féete kaw amut suñu borom nee na mën na ko faa jëlee indi la lu gën loola wala lu mel mag ñi bagage yi ñu doon liggéey lañ yóbbu yóbbuwuñ ko lañ amee ca liggéey ba lañ yóbbu waaye bagage yi ñu doon liggéey mi ngi fi <laughs> lañ amee ca liggéey ba nag yóbbu nañ ko wa amma ma yan faaw naas fa yam ko su fil ard ku amut sag yaa fuusa la xañ moo tax nu war a fet di liwaat laxasaay yi bu baax a baax sëñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax a baax mi ngi lay ñaanal bu baax a baax njaboot gi nga xamante ñoom la jaboot it ñun ñëpp nu ngi àndandoo di ñaanal ndax jëf ji rëy na lool sedd na xol it rafet na lool fa tabaarakallaa té li tax ki tax nga di def ño ci bokku yam bu la neexoon woote ko ci def ko waye sagal sunu kilifa gi di seigne ahmadul Muhtar. ak wané ni yeuf yi ci la bok motax nga indi ko fi lolu xam nañ ko bu baakha a baax te ñaanuk donga yi du nen seigne matar pend jeng néna dama dajé dajeeg ci biir caisse gi né seigne touba jox ma doomi tandarma maniko yol julli yalla nalako yalla defal né ndekati tanderma ji ab saako la né sembubuk. bi ni ma yangal sa ndax ñaan googu mu ko ñaanal ne ma yang sama bubu ne señ bi ni bàyyi kalamba bi bam fess mu sotil ma ne ma ko yol ababakar usman Ali ak sayyidna Omar yalla na ko jox ne señ bi wekk ma sako bi ni ma jëlal kon ñaan am na solo torop señ bi noo ngi lay ñaanal ci jey pak bi yalla na sun borom taxaw yalla na sun borom sam ñaan lan am moy sunu ngannaay té saf nañ ko sas wo xamanteni ni du boy yàlla mi nga xamante ne ni dara tawu ko yal na la yàlla sàmm yal na la dugal ci biir kaaraangeem kaaraangeeg suñu borom nag bu la ko doon misaal dama naa mooy weñ wu dugg ci biir bitéel bu weex ganaar yi wër ko dañuy cof ba sonn waaye duñu àgg ci moom <laughs> wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu

وسلم على المتمم وقل يا جملتين sigil te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér te bul faale ka wuy ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate